wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman sadit lisaani nawwir janaani safi amaani wasid baraa'i barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamualeykum yéen mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi topp liggéey bi fii ci seen télévision Khassayid TV di la première chaîne thématique sur les de Khadim Rasoul sant nañu santaat nañu sunu borom subhaanahu wa di julli si Seydina Muhammad rasulullah sangub sang yi di ñaan tey saa su nekk xalifa sëriñ Touba sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëñ Basiru Mbàkke Xadim Rasul mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanal moom sëriñ Modou Moussa Fall Cheikh mu yàgg fi lool te ànd lañ koy ñaanal njaboot gi mbooleem kilifa diine yi ak mbooleem kilifa aada yi yéen mbokk taalibe yu topp liggéey bi saa su nekk si waxtu bi seen émission mbégum xasida nga xam ni ñu ngi ci ànd ak yéen ci altine àllarba ak ajuma am nañu mbégte amaan nañ mbégte di janoog yéen di leen bégal si mbégum xasde yi ni ko Sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir waxee rek day gën a neex di gën a sell ba àjjana te foofee képp lañu fas yéene ànd ak yéen mbokk yi ñu ngi am mbégte rek saa su nekk ndax xam ngeen ni xam naa ni émission bi ñu bari ñu ngi may topp lu mel ni YouTube bi ak Hann TV nga xam ni diaspora bi la féete ak li nga xamante ne moo di Facebook wax na ñenn ñi ñu ngi may topp di bind di ma wax seen mbégte di feeñal seeni tawféex di feddaliwaat seen couleur ak man waa ñenn yi tamit ñu ngi teewlu wante duñu ma bind wante ñaar ñoo ñëpp benn demul bàyyi ci moromam kon boog ñu ngi jaajëfal ñaar ñooñu ñëpp di am mbégte rek tey bég lool ci ànd gi nga xamante ne saa su nekk maa ngi koy ànd ak yéen te it yéen a ngi koy ànd ak man ci émission mbégum xasida yi ba mel ni mbokk yi dañuy génn li nga xam ni sumb nañ ko rek mooy 100 cent animation ndax xam ngeen ni julli nañ la parce que ba noppi moo tax dañoo fas yéene ànd ak yéen cent animation rek ngir am ay yeneen liggéey ak i mbébét yoo xam dañ koy waajal. ngir mu mën a laytaaye wàccaay màggal tubaa semaine culturelle bi nga xam day fas yéene am le 20 ba le ak safar gi ak màggal gi moo tax ñu def animation rek nga xam ni bu animation dañoo ba dañuy ànd ak yéen seen invité yi nga xamante ne du ñàkk mbës ngeen mbébét ma invité leen te seen bànneex googee seen bëgg-bëgg googee laa bëgg dabu moo tax fan yi ñu fas yéene ànd ak yéen 100 pour cent animation rek tey di tëj ligne bi nag nga xamante ne daanaka kenn du woote. da toog rek di bégee di bég tey teewlu moo tax damay dellu régie rek incha allah daa ji xool benn daaju xas di rek dikkaat fi incha allah mën a wéy ngeen si animation bi. auzu billahi mina seytaani rajiim. wa inni a'iizuhaa bika rajiim. rabbi a'uuzu bika min hamasaati sayaatiini wa a'uuzu bika rabbi an yahduruuni bismillaahi rahmaani rahiim allahumma bihaqqi wajhika al-kariim salli wa sallim wa baarik alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi yaa man ja'ala هذه الحروف رداك وردى رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wajjahtu kulliya bihamdin wa shukur ila waliyi almuminina wa shakur kun ya waliyu ya xadiru ya nasir almuminina innaka alhadi albasir أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سسما أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سسما أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا سسما nafaxtana bi afdalil imaani faltanfaxil jamia bil amaani xafisana bi wa bil islaami faltanfasil kulla anil malaami xaddamta sayyidal baraaya ahmada wal anbiya wa rusla ya man humida xud bi salaata wa salaama abadan lahum kama axsayta man lam yahbuda ila nabi xud bi salaata wa salaam wal anbiya wa rusli munsilal kalaam ala nabi muhammadin wa ali salli wa sallim wa astajib salim lil muntaqa aktub ma yasuru bila nihayatin wa xidmati taqabala yasir li sayidin wala maxtaara ya baxiyan jaalo muxtaara naam fi musalli wal tusallim fi abad ala lazi laka yaqudu man abad uktub salaatan li jamiil anbiyaa wa rusli bi tasliimi waskur kutbiyaa naafiu salli wal tusallim bi ihtiraam ala nabi wal aali wa sahbil kiraam salaatu sil arsil asiimi samadim ala nabi wa aalihi wal hummadim رد مكا إلى العداء إلى العدام يا من أباني بمغجل النداء أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارة لسف مؤمنا مد لكل محسن ومحسنا على بزارات ترى متسنا وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن ناجيتك اليوم بعمد وسكر في المؤمنين يا ولي يا سكر يقعد لي كن فيكون عاجي منك بلا حقد ولا تاج نفيت إبليس لخير أبدا fiisa risa wa kullu man lam yabuda wa jili man qad amana wa aslama wa asana muxjila man lam yuslima kawin li ummati nabi salla alayhi bi taslimi rabbun jalla ijabatan tusasiul adaa إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب للذي يؤمنهم حفيظ أمة خير مرسلين عن الذين كفروا برسل خذ لهم نصرا عزيزا عاجلا wa basiran hum ajilan wajilan li sawi limaani ma yasiru hubbaka ya man indal masiru أغني سبيل الإسلام عن ركوني لا حداك وعني سكوني على النبي ورسول الملتان salli wa sallim yaa mubiida man jaad ala nabii wa rasulil multaad salli wa sallim yaa mubiida man jaad lil muntaqaa wal aali wa sahbil kiraam awsil salaamaka wa julli bil maraam yaa man lahul xalqu كما لو الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجعا ولي خديت دون سك ناجيا أوزل أمة نبي أحمد مسليا عليه في من همدا نصرا عسيسا يسمع الكبارا مع سقار man لهم من بارا سن الحديث والفراق waa régi jërë ngeen mbokki taalibe yi di amaat mbégte rek di leen bégal si mbégum xasida rek comme ni ko sëriñ Bassirou Niass defee di ko ñaanal moom it di sunu magum taalibe di jàngkat bi nga xamante ne njàngam wér na lool lool lool lool lool ñu ngi siy siyaar bu baax a baax soxna Nena Dieng di suñu sœur depuis États-Unis ak sëriñ xaadim magam sëriñ xaadim Dieng mi nga xamante ne jamono yi la rek ndeysaan suñu boom daa dogoon mu leen jël soxna ñu ngi koy ñaanal suñu boom defal ko say toofeex defal ko ngëneel yokk suturaam defal ko ay ndam yu yaatu ba lépp lu ma namm seen bi rek mu antu si si si si jàmm wante noonu la ñuy siyaare suñu sœur soxna Awa bokk si daal asaabul jannet ndeysaan dem mandar sëyi fa ñu ngi ko nuyu di ko siyaare wax ne fàttewuñu benn yoon soxna Binta Mbay ak sëriñ Medoune Chimère rakkam ak seen mag sëñ Fallou ak soxnaam ak njaboot gi ak euh, sunu sang yi nekk ndar ñoom sëñ Fallou kan ñoom sëñ Mourtada kan sëriñ sëñ bu xëfër ak soxna Mame Boussa kan fàttewuñu képp ku nekk ndar rek fàttewuñ la rawatina ngay dongoob sëñ Tuubaa wala nga bokk ci Sëriñ Tuubaa wax ne mbokk yi ñu ngi leen jëfalaat di leen fàttaliwaat rek képp nga xamante ne rek euh, bëgg nga jokkook ñun wala bëgg nga am liggéey bi ci ci ci anam bu gaaw gis ngeen ecran bi cloche baa ngi euh, affiché noon da ngay dem YouTube nga bës cloche bi daal di abonné wala nga dem Xasaay TV page Facebook l'officiel nga abonné li nga xamante ne moo di cloche bi euh, mooy j'aime bi boo ko abonné rek lépp li nga xamante ne ay programme xasaay TV la rek daanaka mën ngeen ko am te xam ngeen ni màggal Tuubaa baa ngi suñu kanam te murit yépp jamono yi amuñu jàmm moom lañu xëyee di ko gonte di ko fanaanoo moo tax seen télévision xasaay TV incha allah fas yéene ànd ak yéen si yu am solo si wàccaay màggal gi muy mbégum xasida yi muy ndénkaane sëriñ bi mu jotaay xam-xam ak yeneen yi nga xamante ne ñu ngi koy waaj ak yéen xam naa loolu moom duñ ko waxagum léegi ni ko tubaab bi di waxee surprise lay doon ndax bëgg nañu bés bu amee rek ngeen gis seen bopp ngeen xam ni kat xasaay TV dafa fas yéene liggéeyal Sëñ si xaside yi ndax saa su nekk dama koy wax xasaay TV ça veut la première chaîne thématique sur les xasaayid de Sëriñ moo tax liggéeyam yépp du génn xaside yi du génn xaside yi moo tax damay jaare noonu dématrice yi rek waaye si dégtal ñu bañ daaju xas de rek incha allah ñu dikkaat fii mën a wéy ak si animation 100 cent xasaayit seen émission mbégum xas di gën a neex di gën a sell ba àjjana rek. الذي لم يدرج ما أمنا والإقرار

bila jërëjëf waa régie jërëjëfati kuréel Safinatoul Aman jërëjëfati Serigne Ousmane Amady Diop technicien bi nga xam ni moom semaine bi wees rek moo assuré woon émission bu am solo boobee nga xam ni Serigne Moussa Fall yi bu ñu daaya ni dañ daayaloon Serigne Ousmane assuré ko bu baax a baax ndax daanaka ba mu tàbbee si liggéey bu yàggul wante gis nañu professionnalisme bu baax xanaa di ko. yokk ñaanal rek suñu borom kàttanal ko defal gay tawféex ba yéene bi maam jàppale équipe Xasaay TV si liggéey bi mu mottali ko si jàmm wante di ko di ko di ko di ko di ko ñaan nag màggal mu ànd ak ñun ndax xam nañ ni intellectuel la wante màggal moom dañ koy ñaan rek mu daal di ànd ak ñun mën a bokk si si si équipe bi nga xamante ne ñoo fas yéene liggéey màggal Tuubaa wante lu ko jiitu équipe bi fas yéene liggéey Euh, semaine culturelle yoonu Mouride mooy le 20 ba le 27 septembre si Massalikul Jinaan waaye ñu ngi jaajëfal bu baax a baax kuréelu Saafinatul Amaan bi nga xam ni seen prestation bu am solo boobee nga xam ni Porokhane bii weesu mooy guddi ajuma bi nga xamante ne saa bu Porokhane dese une semaine nag Serigne Amsatou Mbacke sony bu moo koy woote ànd koog magam rakkam ñoom Soxna Baali ñoom Sëñ Abdou Samad ak ñëpp. ak awlu xasida yëpp di ko siyaare mun taxa Mbacké Bachir ñu ngi siyaar bu baax kuréel Safinatoul Niam Aman di kuréel bi nga xamante ne sig waxin waxin la daal si si si révélation la ñu bokk ndax ba ñu tàmbalee yàggul noon noon noon wante seen njàngu set na rafet na tege na ci yoon ba mën nañu wax yëf yi bu doon course bokk nañ si course bi te loolu du du du seenu njàmbaar moo leen ko may seenu ndimbal la te ndimbal googee weesuwul mooy nekk si day fonk ko jox li moom loolu moo leen dimbalee ba fépp fu ñu jàng rek dañuy naan ñii ñan la ngir jàng bu set ak jàng bu am solo kon ba na Safinatul Amaan ñu ngi leen ñaanal bu baax di siyaare suñuy jëwriñ yi fa nekk su suñuy wëllële ku mel ni jëwriñ seen Xaadim Jóob sama waa ji jëwriñ sëñ Abdul Xadim ñoom sëñ Xaadim lay ak sama waa ji Serigne Ndiaga Fall mi nga xam ni ndeysaan boobu ba léegi bugg nañ ko daral fii si mbégum xasida yi waaye yàlla dakaa natoo mu xaw a bëri kerse te xaw a ragal média wante na xam ne fii am na fi place am na fi place bu yaatu xëy na bañ lu ñuy invitation bi sax wante nit ki moom euh, ku nekk ak ni la yàlla bindee kon boog dañ koy comprendre bu baax a baax si dog ngànd gi di ko comprendre di ko wax ni daal fii am na place ak képp nga xam suñu borom daf laa dimbalee nga am kenok xaside yi mooy sig waxtaan wala sig jàng wala nga doon sax bindkat ndax bindkat yi incha allah fas nañu yéene ànd ak ñoom ginnaaw bañ si ànd ak alaaji Wàdd jamono yële incha allah dinañ ànd ak yéen si yeneen bindkat ñu xamul ni xeetu mbind nii ndax bind yi bari na am na bind yoo xamante ne de xaw a doy waar am na bind yoo xamante ne jub na loolu incha allah dinañ si waxtaan bu ñu invité bindkat yi. moo tax ma naan képp nga xamante ne am nga kenn xasida yi rek muy si waxtaan si bind ak si jàng dana ñu la dalal fii incha allah ñu waxtaanee xasida yi waxtaanee lu bari si biir émission mbégum xasida yi ngir bégal leen wane mbokk yi fàttewuñu xam naa du ñàkk yow mi may teewlu saa su nekk yaa ngi wax sa xel ah sëñ Mohamed kañ ngay invité sëñ Lat Touré kañ ngay invité sëñ Ibra Gueye seen Mambay Gueye sëñ Moussa Ñing sëñ Abdoulaat Diouf sëñ Akassa sëñ Fallou wante digg naa leen te jaayante naa ko Serigne bi la ñoo ñooñu ñëpp incha allah bu soobee yàlla danaa leen dalal fii te danaa leen waxloo danaa leen jàngaloo te it yéen may teewlu danaa leen xamal si ñoom loo xamante ne xamoo leen koon si li nga xamante ne war ngeen ko xam si ñoon ndax xam ngeen ne mbégum xasida yi donte fi dalal ay jànkat yu am keno wante jànkat yi am na loo xam dafa nekk seen ginnaaw. am na foo xamante ni dañ fa jaar muy si wàllu parcours ak formation loolu tamit dañoo fas yéene ànd ak yéen si mbégum xasida yi ngir képp ñëw rek ginnaaw njàng beeg waxtaan bi da nga xam lu bari si moom comme ni ñu koy defee moo tax it dañuy wéy ak yéen rek 100 pour cent animation seen émission mbégum xasida yi ñu delluwaat dirigi rek teewluwaat benn daaju xasida yi incha allah dikkaat fii mën a wéy ak yéen si biir émission mbégum xasida yi

ذنبا حالا amali wa ربي الكريم بكتب jërëjëf waa kuréel Cheikhul jër jërë ngeen jëfati mbokki taalibe yi jàngeen jëfati rek mbokk yi di amaan mbégte rek wana xam naa ni mbégte gi lu mu lu mu lu mu bare bare si man si yéen la ëppee ndax li ñuy def yëg nañ yéen a ngi siy gis seen bopp gis seen bopp boo xam ne mbégte gu amul yamuwaay la kon mbokk ñu ngi sant bu baax di leen jaajëfal amoon mbégte rek doon ànd ak yéen seen émission mbëggum xas yi si 100 pour cent animation yaakaar naa ne am ngeen mbégte si tàmbale gi Serigne Bassirou Niass ak euh, kuréel Safinatul amaan ak kuréel Cheikhul Khadim mi nga xamante ne géejawaay la ñu faree di kuréel bi nga xamante ne jàng moom suñu borom daf leen ko dimbalee te seen prestation yu mag yu bari si bésub màggalu Saint-Blaat ndax xam ngeen dakaar ñoom màggal Saint-Blaat bu gën a mag fii Dakar ñoo koy def kon mbokk ñu ngi si sant ñëpp di jaajëfal ñëpp amoon mbégte rek doon jàkkaarloo ak yéen seen émission mbégum xasida yi di sant bu baax tey jëfal sama réalisateur Serigne Moussa Thiam bi nga xam ni saa bu ma amee nu ma mel rek wala saa bu lépp jargee rek moom la kon mbokk ñu ngi koy sant di ko jaajëfal utumatal Moustapha an kulli mafsaratin waltar amil xalxaya man jaddahum badaa utumatal Moustapha amma yajuuru lahum si wal ibaadaati wax simhum min achar jërë ngeen jëf jaa ngeen jëfati hajat xasaayidi xulub alxamalat min ansi wa hiya busarun lil kamalat hajat xasaayidi xulub alxamalat min ansi wa hiya busarun lil kamalat أشرقت قصائدي قلوب الحملات براسي وهي بسر للكملات هاجت قصائدي قلوب الحملات براسي